kan mooy sëriñ baara jàngul ba sonn tondoon gàggan ci gaaya gagoon ca lawhu mahfuus man yem naa sëriñ baara fa kun fa la dàmbee xam-xamu bi kamam booleeg sirub alxuraan maa gëm sëriñ baara fa kun fa la dàmbee xam-xamu bi kamam mbooleb sirub alxuraan maagam sëriñ baara taalif na téere yu rëy salmasi taxamul kaa nga kifoore du xam bindum sëriñ baara taalif na téere yu rëy salmasi taxamul kaa nga kifoore du xam bindum sëriñ baara ca alimul xaymulal tabe sëriñ baara sëriñ bu na sa cosaan bay weddi lii ma la wax jàngal mu na wér bul yaanum sëriñ baara sëriñ bu na sa cosaan bay weddi lii ma la wax jàngal mu na wér yaanum sëriñ baara surub aroot ak bayaan ak téere yi taxa xam ca alimul xaymulal tabe sëriñ baara ca géeje xëy bu la naan ba maan di di bëngeen nekkuy lu mat dandu leen bal dey sëriñ baara ca géeje la naan ba maan di ñëw di bëngeen nekkuy lu mat dandu leen bal dey sëriñ baara koo xam ni kii bu musaa tàngoor ba geesu wetam lum xol mu moo di sëriñ baara béjjén bu rëy ba fi daane nooru diine ya woon yàlla ko sot ba mu ñëw te mooy baara koo xam ni yàlla dadaa dakkul xelam lu mu wax mu far dajeeg dogalam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 doxloo garab yi bu wér noo man di tollu mato santu sëriñ baara koo xam ni ki manulaa xëy soppi doj yi wurus noo man di tollu mato santu sëriñ baara koo xam ni ki manulaa naan géeji jën yi ni mes toppal ci Seex Ibra Faal sëriñ baara koo xam ni ki manulaa naan géej ki manulaa naan géer yi dënni li mes toppal ci Seex Ibra Faal santub Sëriñ Baara yónneen yaa xutbu yaak labdaar ya ak ñi fi woon kenn musu fee ñëw ba yor mbootum Sëriñ Baara ku du rasoolu todoo Cheikh Bamba doo mujur nox man ci toll yoroo ndombay Sëriñ Baara xar baaxi Seex Bàmba ak mbootam yu rëy yamu xam ak muxjisaatam ya ñooy xeppug sëriñ baara xar baaxu Seex Bàmba ak mbootam yu rëy yamu xam ak muxjisaatam ya ñooy xeppug sëriñ baara mboolam wilaayat sëriñ Tuubaa ga lay asakaam la seex si seddoo na day baax ak sëriñ baara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 yàlla mu sawa may turandoo baara fanaa min daa gëmoon Seex Bamba fekk ligal ba dabi jànnatoo wóor na sëriñ baara keroog ba Seex Bamba ne tey ajjana ca dem du ñàkk tey moo dem mooy ndoy baara maam soxna bu soo dem mu ni ko toogal ma dem te nga wuuf see baara bambayi koo foofa nag di toggi reer ca mara la dal di liggéey wóor na sëriñ baara keroog la bur yàlla naa rilwaanu nag ma ubbil ajana ma teral waajuru sëriñ baara rilwaan di ubbi buntu ajanu bee kaawafal boobee ba tey tëjuwul ngir xeetu Cheikh Baara jigéeni àjjana waajak seentakaayi wurus di soxna amin toloom sëriñ Baara maam soxna bu so des fii di seddale ngor diggante Seex Mustafa ak fàlloog sëriñ Baara loola waral loola waral ba sëriñ Tuubaa